muy forum bu am solo boo xamante nii ci njiital Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr lay doon ànd koog gouvernement bu réew Mauritanie ak mboolem taalibe yi nga xam ne dañoo nekkee ci Mauritanie. ci waajal lu ni mel Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr yabal délégation boo xam ne. demoon nañ ne meeku ji ministre bi nga xam ne moo di Ahmad Ould Daoud di ministre bi nga xam ne moom moo yor wàllum affaire islamique ak enseignement original foofee ci Mauritanie ak docteur Mohamed Lamine Cheikhna di directeur de l'orientation islamique ci ak son excellence Mamadou Moustapha Tall di ambassadeur bu Sénégal foofee ci réew Mauritanie ngir waxtaan mboolem ak kilifa yooyu ci li nga xam ne moo jëm ci matuwaay yi ci wàccaayu forum bu am solo boobu nga xam ne thème biñ ci tànn moom moo di wàllum soufisme ak rôle bi nga xam ne joué na ko ci jàmm am ci àddina bi waaye it soufisme ci taxawaayam ni nga xam ne noonu la defaree doomu aadama yi ci mboolem jikko yi muy forum bu am solo boo xamante ni mboolem taalibe yi nga xam ne dañoo nekkee ci réew Mauritanie ñu ko teewee ànd kook Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadir mi nga xam ne moo koy jiite ak gouvernement bu réew Mauritanie. mbokk yi comme ni ngeen ko xamee euh, sëñ Mouhamadul Mountakha euh, mi nga xam ne mooy xalif général Euh, délégation bi yabal si Mauritanie ca Serigne Bassirou Mbacké moom sëñ Abdoul Khadir mi yor kàddu yoonu murit jiite ko ànd ak kilifa yu mag sëñ Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma mi sëriñ Moustapha Diatara mi moom bàyyi sëñ Diatara sëñ Chouaïb bu Kébé sëñ Ahmad Saloum ak man mi ak yeneen mbokk yu àndal yëpp xam ngeen ne dañoo baaxoo ñëw Mauritanie at bu jot ngir nemmi ko jeexiti sëriñ Touba ak soppee sëñ Touba yi fi nekk ak taalibeem yi ak gën a dundalaat kóllëre yi doxoon suñu digganteeg waa Mauritanie Cheikh Mamadou Mountakha bi mu ñëwee loolu la feddaliwaat rek ne na ngeen ko defee ni ngeen ko daan defee lu ngeen ci gën a mën a yokk sax ngeen yokk ko ci ndax lu baax moom koy def yokk rek moo ci moo ci war looloo waral ñu ñëwaat fi defe ko comme niñ ko baaxoo defee luñ ci gën a mën a yokkit dañ koy yokk incha allahu taala bu déwee ne du noonu lu baax moom dañ ko war di yokk euh, def nañ nag biñ ñëwee def nañ def nañ lu bari liggéey nañ lu bari dem nañ seete ay borom xam-xam yu bari dem nañ ci ay daara yu bari bokk na ci daara ji nga xam ne Cheikh Ahmadoul Mountakha Fall doon jànge jokkoo nañoo ak ay borom xam-xam ay universitaire ay borom xam-xam ngir waxtaan ak ñoom ci programme njàng mi nga xam ne Cheikh Ahmadoul Mountakha mi ngi koy taxawal jamono ak lu bëree bëri euh, bokk na ci yiñ fi war a defit xam ngeen ne am ndajeem xam-xam mag moo xam ne Serigne Bass moo joxe ndigal ci ñu taxawal ko fii ci Nouakchott ci palais congrès bi lépp it mu jële ko ci ndigalu Serigne bi ngir waxtaane ci waa Cheikh Ahmadou Bamba joxe ci comme misaal ci nit ku mën a tasaare jikko yu baax ci àdduna ci nit ku mën a tasaare jàmm ci nit ku mën a joxe njàngale mi nga xam ne a jariñ àdduna lañ fa fas yéene waxtaane suñu mbokk yu bari ñoo koy ñu koy def ñenn ñi ay murtaniya lañ ku mel ne Cheikh Seydou Moul Mazrouf ak ku mel ne Cheikh Chouaïbou Kébé mi ak buñ noppee diglu kàddu borom xam-xam ci waa réew yëpp ñu wax joxe ci seen xalaat ki nga xam ne moom lañ seeti nag tey mooy sunu mbokk comme niñ ko waxee léegi di suñu collègue boo xam ne jàngandoo nañ liggéeyandoo nañ di ku baax Seyd Ahmadul Ahli Daoud nit ku baax bokk ci famille yi bu mag di ku bari xam-xam moo jiite tey ministère bi nga xam ne moo yor wàllu lislaam ji ak njàngum cosaan mi ci réew mi euh, bu ngeen fàttalikoo rek bi fi sëñ Sidi Muxtaar jógee moom ci jëmmam ci li ci njëkk am moom la fa président bi yebal jox ko avion mu ñëw jaale si ko loolu it ngeen bàyyi ci xamee ci cër bi président bi réew mi Seyd Mouhamadul Abdoul Aziz jox waa Touba moom mii la yebal jox ko avion mu ñëw jaale si delluwaat ci même bis bi boole koog délégation bu mag a mag a mag a mag a a mag boo xam ne gis ngeen loolu lay continuer fu mu toll kon it ñu ngi def occasion di ko sant bu baax a baax président réew mi Seyd ñëpp waaye nag surtout waa Touba ku ne xam na ne fi mu leen teg tegu fa kenn tey doon ko nuyu si di ko yëgal tànk yi ñu tax a jóg moom mooy ministère bi nga xam ne moo gën a dëppoog ñu tax a jóg di ko yëgalaale it ndaje mu mag mii ñuy war a def incha allahu taala ci am yéene am fas yéene ànd koog moom loolu moo tax Cheikh Abdou Lahad Mbacké mi ànd ak ñu tedd ñi mu àndal ñëw di ko seet si gis ngeen teer yi nga xam ne jëbbalaale nañ ko itam jóge ci sëriñ ba jóge Touba muy al majmu suxra bi ñu mool ak min wasaaya Cheikh al Xadim bi ñaar yi ñu joxa joxaale ko ndax sëñ bi moo ñu digal loolu bi ñu ñëwee mooy teer yi sëñ bi ñu tasaare ko luñ man loolu daal mooy sabab tànk moo sabab suñ tànk yi fii kon ñoo ngi koy sant nag moom mi bu baax a baax ngir kóllëre yu rafet yi nga xam ne seq na ko waa Touba ak ni mu leen fonk ak di leen défendre fu mu toll wax na ma bis sax ne ma moom moom nitu ko officiel génn da koy jafe tukki lu ndigal waaye am na yéene lool suñ colloque yi ñuy def ndaje xam-xam yi lu mu ci mën a doon nen mu participer ci ndax moom day ku gëstu ci tasawuf ci tasawuf bëgg-bëggam la lool lool neen am na ciy xalaat jërëjëf loolu daal laa doon ubbee ci wax ji bi بمقابلة سيادتكم ونبلغ كما قال الأخ بتحيات الخليفة العام الطائفة المريدية وتحيات الناطق الرسمي الشيخ محمد البشير وكما في علمكم فإننا قد تقابلنا معكم وجئنا بوفد مع ابن الشيخ فيما يتعلق بمشروع الجامعة وتحدثنا معكم بإسهاب وبجميع التفاصيل التي تتعلق بالمشروع وقد أكرمتمونا بمقابلة وأخذتنا من وقتكم فترة طويلة وجئنا أيضا لهذه المهمة ما زلنا في المهمة وكما تعرفون فعندما جئنا لأول مرة كانت في المشروع في في الإنشاء والتفكير فقط لكن الآن بدأنا المشروع عمليا وقد وضع البرامج والمناهج وأعتقد أننا أتيناكم به نسخة من من المنهج والشيخ الآن قال أن هذا المشروع أهم من أهم أولوياته في الخلافة وهو ينفق فيه سبعة وثلاثين مليار فرنك سنغالي إن شاء الله وعندما فكر في المشروع فكر في الأساتذة وفي المناهج wa awalu baladin fakkara fi taawuni maahum wa Mauritanie liannahu darasa huna indahu asdiqa wa ixwan fi Mauritania wa aydan lana yani ashyaa mushtaraka wa sawaabit mushtaraka almadhab almaliki wal fiqh almaliki wa tasawuf aljunaydi wa caqidat alashari hadihi sawaabit almusharaka wa sabab fi annahu ixtaara mauritania walmagrib liannana musharikuna fi hadihi sawaabit وكما قلت لنا في المرة السابقة بأنكم على استعداد للتعاون <clears throat> مع الشيخ في كل ما من شأن إنجاح هذه هذا المشروع فما زلنا أيضا ننتظر ذلك إن شاء الله من منكم وما تعرفون فإن المشروع الآن الشيخ بدأوا البنايات البنايات ما, زال ما زلنا فيها على طول إن شاء الله وإن شاء الله ننتظر منكم مزيدا من الاهتمام ومزيدا من التعاون فيما يتعلق بالمشروع wa nashkurukum shukran jazilan ala hadihi muqabala wa nashkuru sayid rais kama qala al akh fa inna sayid rais lahu ihtimaamun xaas bi madinati Touba fi kulli almunasabaat yursilu wafdan muhimman maa hadaaya samina wa qayima ila fadilati alxalifa alaam li taifati almuridiya fa nahnu nashkuruhu shukran jazilan wa nashkuruka xaasatan